nga xam ne euh, mooy troisième journée campagne électorale lors des étapes de Tataguine Fatick Foundiougne la tête liste nationale de PASTEF a balancé sur Macky Sall et ses euh, autres adversaires de vrais cocktails euh, Molotov si l'ancien président de la République se souciait de ses origines Fatick ne serait euh, pas dans cet état la région est loin d'être une métropole il y a deux sortes d'opposants au Sénégal ceux qui sont nostalgiques et veulent revenir Euh, par la fenêtre et ceux qui croient que je suis responsable de leur échec politique lii la wax toujours fidèle à lui-même ah ndeysaan ay ay ay ay pig rek mooy loolu journal bi ñëwaat na ci li nga xam ne euh, mooy euh, mbiri Ahmed Ndoye ndax euh, Ahmed Ndoye démb lañ ko placé sous mandat de dépôt wax ko jugé ni ki lundi prochain voilà lundi bi ñëw la koy daal di leneen li nga xam ne journal bi moom it xëyee na ko tey muy mbirum Barthélémy Diaz ak l'intercoalition bi nga xam ne moo ëmb sàmm sa kàddu jàmm ak njariñ ak takk wallu Sénégal ndax xam ngeen démb gis nañ leen dañoo demoon seeti ji ñi nga xam ne ñooy les chefs religieux dooree ko nag foofee ca cathédrale bu Dakar fa la njëkkee seeti woon nga xam ne mooy euh, monseigneur euh, Benjamin Ndiaye waaye gis nañ ni am na ñi nga xam ne pendant ce temps Euh, Babacar Mbengue list de liste départementale bu Dakar moom mu ngi woon Cambérène gis nañ leen aussi ñu daal di euh, dem seeti ñi nga xam ne ñooy uh, uh, sëriñu waaye Barthélemy moom source ali mu titré mooy Barthélemy gonflé à bloc temps yi moom daa mer ay ay waxam daa diis effectivement mais pas lu explosé non mais nan na na na contrôlé rek parce que su su deful noonu rek dina tombé ci piège bi de dina def toj toj bu ko yóbbu léegi en tout cas daal ay bal lay wax ndax nee na à chaque étape Nous avons échangé sur les défis actuels et les perspectives pour un Sénégal plus fort avec l'objectif d'éclairer notre voie politique par les enseignements et la sagesse de nos guides religieux. Les Sénégalais sont en train de découvrir le vrai visage de ces personnes tenant du pouvoir qui leur ont promis euh, mots Ils mettent en place des stratégies qui sont antipodes d'une démocratie euh, qui se respecte. Mm-hmm. démb daal ginnaaw bu def face à la presse euh, ñëwaat na ci li nga xam ne euh, mooy euh, violence bi am ci campagne bi waaye ñëwaat na ci li nga xam ne mooy le port du voile waaw ah, ndax nee na état warul exiger benn école à que naka la ay élèves am war a war a am ci port vestimentaire loolu la wax mais tamit insisté waat na ci li nga xam ne mooy euh, procès bi tey Tamba nañu dem ci jàmm jëli Bougane ci jàmm ñibbisiwaat Dakar yeggale seen campagne ci jàmm mm-hmm. loolu la daal di wax leneen li nga xam ne journal bi xëyee na ko muy mbirum Bougane Gueye Dany moom mi nga xam ne tey dina euh, dem tribunal bu Tamba ngir ñu daal di koy juger voici euh, la colonie d'avocats attendue entre autres entre autres robes noires pour tirer d'affaire l'opposant Maître El Hadji Diouf a ministre de la justice Euh, maître Amadou Sall euh, Fall Abef Djibi Diallo Souleymane Soumaré euh, Ladji Ba voilà pôle d'avocat Bougane la ñu su a di présenté ni maître El Hadji Diouf xam ngeen ni moo ko jiite waaye maître Amadou Sall moom itam mu ngi ci biir Souleymane Soumaré Ladji Ba entre autres ñi nga xam ne ñoom tey ñoo ko war a layal foofee ca Tambacounda verdict rendu sa matin ou délibéré au 6 novembre prochain la grosse inquiétude des proches de Bougane Gueye Dany parce que à tout moment aussi mën nañu renvoyer bi euh, vers mën nañu renvoyer verdict bi pour la semaine prochaine en tout cas on sait pas encore mais lu ñu si mën a jàpp rek mooy su ma juumul audience bi euh, fileek ci kanam euh, dina commencé alors di ngeen ko mën suivre sur Source A TV ndax fi mu toll nii Sidi comme man dañu ma teree dem <laughs> Sidi mi ngi foofu ak moom di ngeen mën a dund <laughs> di ngeen mën a dund li nga xam ne mooy temps fort bi da nga am chaque ni dib damaa naroon a fàq nga wóor ma rek ma ne la maa ngi nii si yoon Tamba bi <laughs> Amadou Ba moom it bi ngi wéyal li nga xam ne euh, mooy campagne am comme euh, yeneen euh, candidat yi moom démb wax na ak ñi nga xam ne ñooy jeunesse bi dem leen wax nee mooy dañoo defoon erreur ci présidentielle bi kon il est temps de rectifier le tir bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom rek moom nee na législative yi mooy deuxième tour élection présidentielle. Thiès euh, ba mu jaaree Rufisque Amadou Ba nag bon xam naa ni il fait une campagne peut-être un peu discrète mais euh, il est en train petit à moom Amadou Ba di jaar ci yenn gox yi fu mu dem nag euh, comme gars yi rek euh, def ay promesses wala tamit insister euh, sur euh, nouveau régime bi lu ñu fi jot a def bañ fi nekkee ba léegi moom nag gis nga comme nu ñu insister rek moom dafa jàpp ni en fait sénégalais yi tey ñoo ngi regretter la moo tax ñu fal ñi nga xam ne nii ñoom ñoo waa Pastef indi leen ci réew mi moom daal moom lu mu gis mooy daal euh, élection législative yi c'est le moment pour ñu rectifier le tir maanaam Euh, ñu euh, changer mbir yi parce que gis na ni en fait sénégalais yi lu ñuy yaakaaroon si nguur gu bees gi loolu daal amul euh, l'autre chose mooy Barthélemy Diaz aussi moom sàmm sa kàddu mu loon seeti ñi nga xam ne nii ñoom ñooy kilifa diine yi daf mel ni euh, loolu nag euh, c'est pas anodin euh, le fait que Barthélemy Dias dem xooli ji kilifa diine yi léegi nag profité na ci wax lu si bëri comme par rapport ak voile bi ni nga ko waxee gis ni en fait loolu doonul loo xam ne nii état war na ko mën a lijjanti moom Barthélemy Dias gis ni nag sénégalais yi occasion la en fait en or tey ji pour Euh, tey jii ñu bañ a jox ñi nga xam ne ni ñooy majorité mooy waa Pastef parce que gis na ni en fait euh, bu ñu leen joxee majorité rek moom Barthélemy Dias dañuy yàq réew mi ndax nee na euh, en fait bu ñu xoolee sept derniers mois yi ni ñuy doxalee réew mi dañu war a xam ni en fait ñii mënuñoo yor réew mi l'autre chose aussi mooy Ousmane Sonko usmaan Sonko nag moom jaar Fatick ba mu jaaree Fatick nag bon Euh, moom euh, moo ngi doon xas foofu Macky Sall gis ni waa Fatick en fait euh, ñoom Fatick fu mu fu waroon toll toll fa ndax maanaam investissement yi nga xam ne nii waroon nañ ko fa def defuñu ko fa mu gis ni en fait waa Fatick maanaam Macky Sall moom dimbal bu leen waroon dimbal dimbalu leen ko alors que moom ci gox boobu la ko moom Ousmane Sonko l'autre chose aussi mooy Bougane bi nga xam ne nii tey war nañ ko àttee fële sa Tambacounda ci flagrant délit léegi nag Bougane comme ni nga ko waxee euh, tey mën nañu am verdict wala mën na doon renvoi boo xam ne nii euh, délibéré lay doon peut-être euh, maanaam mën nañ bañ joxe verdict bi tey loolu yëpp ça dépend si décision juge bi ak tamit procès bi est-ce que dina gudd est-ce que dina gàtt parce que des fois bu fekkee nii ki nga xam ne nii moom la ñuy topp dafa yor pôle d'avocat des fois loolu day waral en fait euh, procès euh, mën a yàgg peut-être mu def sax deux jours on ne sait pas quoi parce que des fois avocat yi avocat yi des fois euh, ñu wax bëgg defaat ay réplique ainsi de suite procureur war a def réquisitoire am des fois ñenn ñi bëgg a tontu mais euh, lu yaakaar naa ni peut-être procès bi tey lay am mais nag tey lay tey tey en fait dinañ pare plaidoirie yi mais nag li jëmee si verdict bi mën nañ ko joxe tey kon mën nañ ko joxe beneen jour Euh, l'autre chose c'est par rapport ak ki nga xam ne nii moom mooy Ahmed Ndoye parce que Ahmed Ndoye finalement moom il a été placé sous mandat de dépôt léegi nag Ahmed Ndoye li ñu koy toppee mooy euh, en fait euh, conduite sans permis de conduire loolu mooy première loolu moom mooy première première charge bi euh, beneen charge bi mooy euh, kii blessure involontaire blessure involontaire bi nag boo leen ko déggee c'est par rapport ak euh, waa borom Jakarta bi nga xam ne nii moom amoon na choc ak moom leneen li moom mooy faux faux bi mooy par rapport ak attestation bi parce que dégg ngeen sax ñu ne policier bi nga xam ne nii moo ko defaloon attestation bi nekk police su Medina moom Euh, du ñàkk tey ñu defeere ko au parquet ndax il s'est avéré waaw ah, policier bi comme li ñu doon wax rek comme li ñu doon wax rek maanaam mhm. comme li ma la doon wax maanaam il arrive que des fois nga gis euh, nit euh, dem ci benn policier mu defal ko attestation attestation sans permis sans permis loolu arrive ah, waaw ah, parce que parce que parce que man en fait euh, ba mu doon kii ci ci dossier bi moo laajtee après ci lañ ma ne am na ñoo xam ne dañuy def loolu quoi. Mm. da ngay yor oto yoroo permis de conduire dama mm. gis benn policier. mu waaw waaw. Euh, mu en tout cas policier bi euh, moom xam naa ni tey dinañ dinañ dinañ ko defeere ci. par rapport ak l'histoire euh, de Amendoy l'autre chose mooy par rapport à Abbas Fall xam nga Abbas moom euh, démb xam nga yaa ngi ko doon wax ne Abbas dañ ko convoqué waaye mm. Abbas mu mujjul dem léegi nag c'est pas en fait ce qui s'est réellement passé mm. Euh, bon d'après nos investigations en fait ce qui s'est passé mooy mm. Abbas Fall euh, gendarmerie dafa prévoiroon en fait pour auditionner ko mais il n'avait pas la gendarmerie joxuñu ko woon physiquement convocation comprendre nga Euh, mais dañu prévoir woon pour auditionner ko le lundi léegi ce qui s'est passé mooy xam nga Abass dafa nekk ci campagne électorale. Mm-hmm. léegi nag ñoom ils ont essayé de pour en fait notifier ko ni euh, ñoom dañ ko bëgg a auditionner dans le cadre de la dans le cadre de ces déclarations yu mu def euh, par rapport ak euh, prise de bec bu mu am ak Barthélémy Diaz ainsi de suite léegi ñoom finalement mu jëw ko jot moo tax convocation boobu noonu mujjeewul antu en fait dañ ko waroon déglu le lundi léegi nag jusqu'au de bon dernière nouvelle yu ñu si jot a jot mooy Abbas Fall ñoom ba léegi ñoo ko doon jéem woo waaye waa gendarmerie finalement mu jëw ñu ko jot mais nag l'observateur lu mu bind ni en fait Abass Fall ñoom convocation c'était prévu en fait programmé loolu moom dëgg la mais Abass Fall comme moom Abass Fall nu mu ko waxee parce que moom il a écrit à travers sa page Facebook en tout cas sur les réseaux sociaux ko jotagul benn convocation effectivement il a raison kenn joxu ko benn convocation mais convocation boobu en fait c'est dans le circuit léegi nag pourquoi la gendarmerie ils ont préféré euh, l'appeler au téléphone au lieu d'aller voir euh, Abbas Fall fu mu nekk peut-être nag bon. bi ñu xamee fi Ahmed Ndoye nekk dañoo dem rek ni ko coppet. waaw dem na ko coppet. Abbas Fall bu ñu bëggee xam fu mu nekk pour dem joxe ji ko convocation waxuma jox dem jàpp ko demee jëm joxe ji ko convocation mënu leen a të. waaw tout cas daal téléphone bi pour lan la. en tout cas daal c'est ce qui s'est ce qui s'est passé de de source sur que Abbas Fall ñoom. Euh, bëgg nañ ko convoke woo nañ ko au téléphone jotu nañ jotuñu ko ison ont insisté pour jot ko léegi nag xam naa ni sama naataango yi ñoom loolu la ñu yëg ni en fait ñoom ni Abass Fall gars yi ñoo ngi ko bëgg a woo moo tax euh, ñu ne en fait Abass Fall dinañ ko convoqué nañ ko lundi waaye ñëwul mais finalement moom comme que tant que recevoirul euh, convocation bi wala si wàllu boppam ñu woo ko ba xamal ko ni en fait vous êtes convoqué pour. jour tel pour mu ñëw au niveau de la gendarmerie xam nga ni jusqu'à présent kon mu mënuñu ne audition programmé nañ ko pour tel jour mais lundi daal en tout cas moom Abass Fall waroon nañ ko déglu en tout cas. ce sont en lundi démb. lundi barki démb quoi barki démb lañ ko bëggoon déglu quoi comme gars yi lu ñu bindoon rek mais waaw. Mhm. wala du non du dara du dara de. waaw bon en tout cas te ce qui s'est ah. c'est c'est ce qui s'est passé information boobu moom hmm. euh, léegi nag euh, le commentaire il est libre mais en tout cas les moom kay gars yi nañ ko commenter gars yi xaw ma nag lan moo tax peut-être bon euh, comme que peut-être il est devant ses partisans les gendarmeries bon ñoom ñoo xam daal pourquoi ils ne sont pas allés physiquement fekk ko fu muy defee ay campagne mag yooyu waa waaw ñoom suñ ko moo tax suñu bë suñu bëggee mu suñu bëggee jot mu jot convocation dina ko jot. waaw non dina ko dina ko jot dina ko jot euh, loolu moom xam naa ni euh, du du ñàkk. ba pare flagrant délit jar na yooyu yëpp flagrant délit jar na ay convocation ay yooyu. ah mais dañ ah, bu fekkee da nga war a bëgg a dëgg bu fekkee ni yow ñoom dañ la bëgg a déglu en fait dinañ la yëgal ni yow topp nañ la soit ñu woo la téléphone wala ñu dem physiquement bu ñu yoree sa téléphone des fois yi dañ lay woo ah ne la vous êtes convoqué jour tel euh, ñëwal gendarmerie affaire yooyu quoi ah. léegi nag bon on va voir ah euh, fan lay mujj mais gis nañ ministère de la justice daal ñoom daal nee nañ euh, dossier bi par rapport ñoom gis nañ ay propos yoo xam ne wala tamit ay jëfin yoo xam ne gis nañ ne loolu yoon mën na koo topp loolu la ñu wax gis nañ ni Abass Fall gendarmerie section de recherche décidé nañ pour entendre ko léegi nag on va voir fan lay affaire yi di mujj en tout cas ce sont entre autres les sujets yi nga xam ne nii euh, on les a traités à la une de Source A. yeneen journaux yi nan la ñu xëyee. ayca Moussa ñu jàll ci euh, beneen di xëyee Vox Pop la ci euh, xëtam gu njëkk ñëw na ci li nga xam ne mooy les zones les plus touchées à par les crues La CNTS FC s'inquiète des risques sanitaires de famine sans précédent pour les femmes et les enfants. Des milliers de personnes sont directement impactées et se retrouvent dans le euh, déroulement, dans l'impossibilité euh, de euh, maintenir une, hygiène de base. Le, la COSAS appelle les autorités à prendre Euh, la juste mesure des risques sanitaire et de prendre les mesures préventives mi nga xam naa temps politique bi moo ñu jàpp ba ñu bëgg a fàtte ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, sud-est bi waaye ñi ngi continuer di euh, dund ay métit ak ndox mi ndax comme ñii rek ni ñu ko waxee risque sanitaire yi ah, mu ngi ci surtout ci ah, xale yi ak jigéen ñi mais surtout li nga xam ne ah, mooy la famine la sonn nañ trop buñ topp politique bi ba ba ba ba fàttale effectivement leneen li nga xam ne journal bi moom it xëyee na ko tey muy mbirum politique rek ak amadu baax Euh, Amadou Ba porte la réplique à Ousmane Sonko. Ils ont euh, jusqu'à prendre le pays et risquent de parler jusqu'à le jusqu'à le détruire fu ñu leen seen rek ngeen ngeen euh, wax rek ngeen di wax rek on en a marre de ces polémiques et des propos malveillants voilà Sonko dina wax ba wax loo muuma Amadou il ne parlait pas mais léegi léegi vraiment day day day tontu. ñëwaat nañ tamit ci mbirum Macky Sall. Macky incertain pour la campagne électorale mon retour au Sénégal n'est pas encore à l'ordre du jour. Mm-hmm. loolu la wax alors que la dernière fois on a annoncé que ni Macky dafay euh, ñëw Sénégal euh, jeudi euh, prochain. leneen Sonko qui explique la philosophie projet le discours et la méthode selon le président et tête de liste de Pastef voilà moom ci ñetti pàcc rek expliqué na li nga xam ne mooy la philosophie euh, projet toujours avec euh, son son son projet mi ngi xool nan la koy def ba expliquer ko ñi nga xam ne ñooy ses militants et sympathisants affaire Bougane Gueye un procès sous haute tension politique comme ni ko mm-hmm. defee rek ñoom it euh, noonu leen ci ñëwaatee ak euh, li nga xam ne mooy euh, procès Bougane bi ci kanam tuuti lay doon mm. foofee ca Tambacounda ce que Serigne Mbacké Ndiaye demande au ministre de l'intérieur voilà moom ñëwaat na ci euh, li nga xam ne mooy violence électorale yi euh, démb publier na benn euh, lettre ci ces différentes plateformes sur les réseaux sociaux ñëw na ci violence électorale yi waaye tamit ñëw na ci saccage yi nga xam ne am na si siège taxawu li mu ko wax mooy ñu ngi xaar yoon def liggéeyam comme ni ñu ko diggee woon nit ñi dans le cadre de jub jubal jubbanti Moussa ñu jàll ci beneen journal l'observateur la ñoom it euh, ci xëtam bu njëkk ñëwaat na ci li nga xam ne mooy euh, wàllum politique ak Amadou baax à bas les masques enquête sur une stratégie euh, politique en jeu d'échec la menace Sonko et l'épreuve des élections législatives tendance en hausse immersion dans la vie des femmes qui ont opté pour le célibat définitif ma détail trahison da koy indi de waaye Sidi Ba waaw jigéen am na foo xam ne jigéen bu xolam tëjoo rek tëju na su ubbeekoo nag sa va su ubbeekoo ça veut dire que elle peut refaire sa vie à n'importe quel moment mais yaa a de yoo xam ne bu xol bi xasee ba castré xam nga loolu tax Youssou Ndour wayoon ko ni mu ni bul bul geesu sa gannaaw <laughs> mais célibataire définitif définitif parce que boo geesoo sa gannaaw rek sa kanam bu bu góor boo gis da ngay jàpp ni trahison bi ko jugee noonu la ñu mel ah. mais loolu mën naa nekk traumatisme également mën na jëm ci jigéen boo xamante ni euh, ay violence sexuelle mhm. violence verbale violence physique ba dootul ñeme xanaa xamoon ni jigéen nga ñëw rek di jël sa jabar am na benn violence mën nga ko violenter noo xamante ne bon pour nga ku nga nekk nekkateeg moom sax day day compliqué comme ñun sénégalais yi ñuy def suñu xel ay ñu baal ma ci kàddu gi pour la première fois ngay jël sa jabar il faut mu metti il faut truc truc truc yooyu noonu mën xanaa mooy jigéen yu bëri tey ñii si biir néeg bi sëy am ñu fa bànneexu sëy de effectivement parce que violence boobu ñu ñu ñu ñu amoon au début te am na jigéen yu góor yu sauvage ñu baal ma góor yu sowaas yoo xam ne <laughs> dan lay màtt ak di la gajeeg di la def ay yëf nga jëlee si traumatisme boo xamante ne yow yow da ngay yaakaar ni mbégu xol amul ah, te jigéen saa waaye nag jigéen yàlla sax dafa wax dafa bind nan nan ngay nekkee ak moom. procédure procédure beeg préliminaire yaak ba ba ba fa mu àndal. te ngeen nekk nit. bàyyi jigéen ñi def leen ay yëf di leen def yu baax. <laughs> Affaire de mœurs. L'histoire euh, folle de la collégienne de 6 ans qui a sauvé son petit ami marié d'une condamnation de plus de euh, 10 ans. Am na fit. 16 ans. Un père de famille poursuivi pour viol suivi de grossesse sur une mineure de 13 ans. am na ñu sonn nag 13 ans. 13 ans nooy tiimee xale bu am fukki at ak ñett. am na ñu sonn am na ñu sonn Moussa Moussa ñu dem si beneen journal. bay waay waay. yor yor la ñoom ci seen xët bu ñëw ne ci li nga xam ne mooy euh, campagne électorale yi euh, Sonko ca Fatick euh, Ousmane Sonko déroule Sénégal vision 2050 sur les terres du Macky voilà dem na mais est xam nga ne waa Macky marqué na territoire am Fatick parce que les gens n'étaient pas sortis de mais bien sûr que si fan la dëkk nag hôpital bu mag ba ñu tuddee madame Faye Sall bu la ne voilà romb naa ko un jou en tout cas dem na di leen li nga xam ne mooy référentiel bi vision deux mille cinquante. Mm-hmm. ah ku nekk ak sa base. <laughs> voilà coalition. yor yor moom bi yëpp Sonko mooy dem si une bi. ah est-ce que nekkul chaque jour la la de. est-ce que est-ce que jour la chaque ah. jour. Hmm. même budul campagne. chaque jour. même budul campagne. Ah. coalition Takku Wallu Amadou Mame Diop dénonce euh, l'incapacité euh, des autorités actuelles. Euh, Barthélémy Diaz soulève le débat de la laïcité, projet de loi en attente, comment le PASTEF veut changer le visage du sport. Voilà, en quelque sorte li nga xam ne moom dañu xëyee Moussa ñu jàll ci beneen yéenekaay les échos la moom ñëwaat na ci li nga xam ne mooy euh, procès ba euh, Tamba euh, Tambacounda sous haute sécurité les avocats de Bougane ne veulent pas de report une mobilisation forte de militants et d'hommes politiques qui qui ont la ville des convois y ont passé la nuit voilà kii bi moom dispositif bi yaakaar naa ñëpp gis nañ ko tey à travers live bu Sidi bi ndax gis nañu Euh, police lam fa ak gendarmerie dañ xam naa dañuy ragal rek la fa xewoon la dernière fois euh, daal di fay xewaat ba tax da jël nañu euh, seen inici initiative yëpp ngir ñu daal di amal procès bu calme crue de fleuve les population du Dandemayo dans le désarroi beaucoup de maisons abandonnées les routes mais ma xam la ma son problème ñii ñoom naka la ñuy def ba voter waaw en fait bon maa ngi si doon laajte mais ministère de l'intérieur ñoom ils ont assuré que euh, toutes les dispositions seront prises que au niveau boo xam nga rek maanaam ils ont impliqué le génie militaire quoi mm. génie militaire brigade des sapeurs pompiers ak l' administration territoriale ñoom ñooy nekk foofu si kii bi pour. mais est-ce se psychologiquement est-ce qu'ils ont la tête Amina Amina xam nga lan moo nekkoon yoon sincèrement. Mm-hmm, mm-hmm. élection yi moom dañ ko waroon dàq quoi. effectivement wala au moins secteur yooyu xam nga parce que am na ay secteurs yu bëri tey jii euh, xalaatuñu voter wala wala wala psychologiquement. boo gisee euh, yenn image yi nga xool ñoom lu ñuy dund léegi day mel ni Venise lañ dëkk ah. Mm-hmm. ñu si bëri seen quartier yi day mel ni comme Venise. booy déplacé wu gaal ngay jël booy dugg sa kër gaal ngay jël. ainsi de suite ah doy na waar doy na waar daal da ngay imaginer calvaire bi au fait c'est compliqué. Euh, c'est c'est très compliqué te bon dafa mel ni gars yi actuellement taluñu leen. quoi euh, état bon bu bi nag bu ñu moytul au niveau du. du du nord du pays wala l'est du pays waaw boo moytul mën nañ leen sanctionné de parce que gars yi tamit yow mënoo nekk si yenn situation yi te xam nga ni ak ndox mi moom maladie yi day bëri saa yi kay mooy loolu ci euh, beneen euh, journal tribune la ñoom ci seen xët ku njëkk ñëwaat nañ ci li nga xam ne mooy procès bi war a am Tambacounda comme ñi ko euh, yeneen euh, journaux yi daal di defee ñoom it ci la ñu ñëw wàllum dispositif beeg euh, tribunal bi nu mu nekkee sous haute surveillance forte mobilisation gëm sa bopp ñoom ñëpp ñu daal di dem soutenir Bougane ñawaat nañ aussi ci euh, visite bi waa Sàmm Sa Kàddu doon amal euh, démb auprès des chefs religieux dénoncé nañ li nga xam ne mooy euh, arrestation Bougane Gueye Dany parce que comme ni ko Barth waxee rek nee na Bougane otage politique Ousmane Sonko la voilà Moussa ñu jàll ci ci ci ci beneen yéene kaay record la ci xëtam bu njëkk mu ñëw ci ligue Ligue Coupe Tottenham Manchester City à 19h45 Pape Matar l'ocre Citizen voilà match la ah ligue ligue lan la ligue des champions wala. ligue cup Angleterre en fait c'est la coupe de la ligue quoi en Angleterre. ok léegi nag bon. Vini. kan. Ballon d'or. waaw mais Pape Matar Sarr sax moom temps yi entraîneur am temps yi li mu koy dugal deuxième mi bari bëri na de ñoom seen dernier match sax ils ont perdu ça quoi j'espère que tey dina ko titulariser Ballon d'or bi. maa ngi gis nga Moussa démb naan ma non Omar kii Vinicius moo mérité kii bi ma ne ko mais tamit Rodri quand même Rodri def na ay jaloore jël na championnat Espagne jël na jël na Premier League Omar nag Omar munoo fi lu dul racisme nag Omar nag bu nit ñëpp nee nii moom du ne nii de moom nële lay def wala muy jéem a xool ci suuf conduite yi di wut fu mu aw yow ñëpp nee na nii neel nii rek Omar lu ni fàng jarul jeex. kii Sénégal Burkina le 14 novembre pour ñëw pour première place bi. première bi yàlla ah, na ñu yàlla na day gën a rafetal rek ah, victoire nga day rafet. waaw day jekk. am yu baax yi. nga xamante ne doo am problème.

Égypte na ko ñaanal yàlla na yëpp nekk ay échec doy na rek. nee na kan qualifié Côte d'Ivoire. Côte ko benn match. nee na ko benn match bi passé dañ koo dóor. champion d'Afrique en titre. waaw Emmanuel Emmanuel Faye da cee daloon moo lay wan ne la na. mérite bi na di. Sénégal boo ko dóoree après saison kattan gi nga siy def la quoi. ah waaw moo tax après da ngay jeexal kattan da ngay jeexal. daloon Balla Gaye bi dafa jël eh, dafa jël énergie am def ko ci Yékini jóge ci ni nag. <laughs> loolu la rek mu ngi noonu merci beaucoup jox ko photom bi waaye Moussa jox ko photom bi ñu tàggoo ay Aïcha mu ngi noonu on te léegi léegi ci kanam pour euh, li nga xamante ni rek moom mooy euh, le reste de la matinale à tout suite.